moo ko tax a jóg waaye lépp rek dugg ci jaamu yàlla ak liggéeyal Serigne waa noonu ko sëñ Mountakha euh, waxee euh, jaamu yàlla liggéeyal ko Serigne waa waaye liggéeyal Serigne waa jaamoo ko suñ borom waa loolu rek lañ bëggoon sëñ bi nga soññ ci ay kàddu yoo xam ne dana yokk pasteefu taalibe yi gën a dëgëral seen pas waaye gën a dundal seen yaakaar ginnaaw bi nga xam ne sëñ seex Sidi Mountakha jóge na fi waaye ba sëñ bi wuutool ko fi ku ko mat jëwriñ muy Serigne Mountakha suñ moom yokk fanam baax a baax loolu daal lañ bëggoon sëñ bi buñ ci mën a yu barkeelu alhamdulilah jërëjëfati borom Touba ñu ngi leen di delloo am nuyoo di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu di am mbégte bu baax di sant sëñ Touba bu baax ci anam yëpp ci sunu xol ak sunu yaram sunu làmmiñ ak sunu cër yëpp ak sunu lépp ci ndimbal lim defal boole na ci boppam te matewuñ ko jotewuñ fa a ah, sëñ Touba nag fa mu ne kenn mënu ko faa fekk ndax lay tax ñu mën ko faa fekk kenn ci nun mënu ko moo tax mu ñaan boroomam mu teg ko ko ba ñun li ñu war ci mucc lépp ñu am ko moo tax ak xam kenn mënu koo jot suñ bay jaxate nee na ko sa ak kenn mënu koo jot yàlla daala ko man waaw yàlla rek moo mën a jot àqam moo xam fa mu ne it moo xam li mu doon waaye nun taalibe yi nag li nu war mooy foog sunu xol sunu xel sunu jëm sunu jëf sunu lépp ñu jox ko sëñ Tuubaa te bañ cee doonati dara sëñ Tuubaa nag ku nu dimbali la ku nu noppal la te mënoon noo sonal ndax yàlla xiir nañu ci moom nu bëgg ko bëggin wu toll ne lumnu jëmele won rek ñu jëm ca waye ndok ba nga xamé ne ci yalla, rek lañu jëmele bëgg bëgg moy bëgg bëgg-bëggu yàlla li muy bañit li yalla bañ rek waxna fenn ne ma ngi giñ ci yalla ne euh, xaritub yalla la di ab soppem te lepp lo bañ nako rek bañ nako wallahi inni lil ilahi bihi wow, xaritub yalla la te lolit sop sopp sakkuuma ci mom mom la neex mu jël ma def ma ab xaritam waxaat fan it ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam it mooy sama xemam teef ci lépp lu mu bañ bañ naa ko nabiyuna al mustafa xayrul wara xarat yi fi kulli shay'in waa maa yaa baaxu a baaxu ah mu mel ne nag sax ci lépp lu baax wan ginnaaw lépp lu dul noona mooy ndigalul Sëñ Tuubaa ndigalam loolu yi nag bi mu ñëwee looloo ko fi indi woon jubbanti nit ñi gindi leen teg leen ci aw yoon bañ ma nekk seen borom am texek adduna am texek àllaaxira nee na bi mu ci nekkee ab diir di ko defee na ko ko boromam sante ci ndigalul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci la ko tubaab yi jàpp ba mënatu ko na ko bëggee woon nee na boromam ne ko liggéey bii ngay def te mooy tagg sama yonent bu tedd bii ak tagg ma defal naa la ci liggéey bii nga doon def muy tarbiyee nit ñi képp ku koy jàngate am ko ca moo tax wax na fu bari di leeral euh, tarbiyee googu mu daa def nu mu ko rafaatale xasida yi ak nu mu ko bàyyee ci moom moo tax saa yu ñu demee ba gis mel ne ñëpp dañ koo yëgandoo di ko woote ci àdduna sépp ñëpp di ci am yitte di ci am yëg-yëg di ci am pas-pas loolu lu dal xelum képp ko xam dara la ci Sëñ ndax ci xasida yi mooy léppam ci la def léppam ci la am léppam bi mu ko ci amee ba noppi ci la ko delloo dafa wax ne eh, tagg gi may tagg yàlla ak yonent bi ci laa amee mboolem lu ma doon mébét madhu rabbi wa madhu xayri musallin xaq ahdali jumlatal muna bin xilaa bi woote gi ñu koy woote ci bis mel na ne junjoon na ko wa biya bashir kulla aamin wa sana man bi yuridu man taxaala an sina na ngay bégal euh, ci mépp at ñi nga xam ne ci man lañuy ñuy namme sunu borom waaw man bi yuri baatub yuridu day dellu ci murid muridullahi yi nga xam ne moom lañu doon ci moom kon moo waral bis am ci at mi yëpp mu mel ne it sëriñ bi li ko indi woon mooy defar ruu te xaside yi ñoo ko ci wóotu euh, euh, nit ñaara koy seq muy ruugi ak yaram wi ak xel mi xel mi bu demee dootuñ ko tuddee nit dof lay tudd bu ruugi demee dootuñ ko tuddee nit am néew lay tudd bu yëpp dee dox mu tudd nit kon nag ni yàlla sàkkee ñoo xam ne seen yitte jëpp dañ koo jëmale ci di jàng yaram bala ci sikk ñu faj ko noonu la sàkkee ñoo xam ne it seen yitte jëpp dañ koy jëmale ci jàng ruu bala ci sikk ñu faj ko ginnaaw nag ñi ñi ñiy defar yaram yi am nañu fulla ju toll ne wéré du guy gaar yaram mu ne te koo rey wutal nañ ko ab bis ci at mi ne bis bi mooy bisub sibbiru buñ ca àggee waxtaane luy sibbiru lu muy faat ci at mi ak nu ñuy nu ñuy def ba gën koo wàññi ak nu ñuy def ba indi ay garab yoo xam ne dana ko mën a saafara ba wàññi lim daa rey ne bis sàngam mooy bisub sida mooy buñ ca àggee noona bis sàngam mooy bis buñ jagleel jabet wala nangam kon nag ñun ñi sëñ Tuubaa bàyyee liggéey bi te liggéey bi lépp ne ci lu mën a jëriñ nit ki àdduna ak alaaxira laaj na ci nun yell na ci nun ñu nit ñu sàkkal ko ay bis yoo xam ne buñ ca àggee dañ koy yaatal ba njëriñ li gën a mën a yaatu ba àgg fi mu a àgg fépp loolu rek moo moo moo waral bis yii ñi ngi sant nag sëñ Tuubaa bu baax tey siyaare julli murid yëpp Cheikh Sidil Muxtaar moom day wàcc naa ndax li ko fi indi woon lépp matal na ko sëñ Tuubaa mi mu wutoon diirib li mu fi ne kenn mus a dégg ci kàddoom luñ koy toppee naan waru ko woon a wax kenn mu sa gis ci jëfam luñ koy toppee naan waru ko woon a jëf li mu fi war a nekkee rek la fi nekke ba ab liggéeyam mat mu dellu ca maamam ji tedd ja yàlla na ko yàlla dolli ngërëm ak leer Cheikh Mouhamadul Mountakha mi ko wuute ni ci xel murid yëpp daje dajee boole yéenee ko ko ba noppi am ci xel mu dal yàlla na ko suñ borom mottilee noonu ba mu àgg fu kawe njortam nee na ma ci làmmiñam suñu Abdou Lahad waxoon na ko ne ko Mountakha yàlla nu yàlla tin ci yow te baal la fi mel na ne kon tey jii rek a taxoon mu di ko wax loolee yàlla ñu yàlla tiñ ci moom te baal na ko fi te boole ñu dimbali ñun ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.